أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokki jullit yi noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala ba tey nu toll ci suura al araf ci kàttanu borom bi ñu war a jël tey ñaari aaya muy aaya 57 ak 58 waaye bala ñuy jël aaya yooyu ñu ñëw ci hidayatul aayatayni ne aaye yi lan la ñuy jàngal ñu war cee jële ay tomb yu tolloog ñeenti mbir yooyu ba ca jiitu mooy taqrir aqidatul ba'th wal xayaat ba'da al mawt lil xisaab wal jaza is hiya min arkaanil iman tomb bu njëkk bi ñu war a jëlee ci ñaari aaya yi mooy aaya yi dañuy saxal pas pasu dekki ne yàlla nu bind wàcce ñu ci àdduna nu war a dund ci àdduna mu rey nu bu nu faatoo ñu denc ñu buñ ñu dencee ëllëg yowmal qiyaam moom yàlla tabaraka wa taala mu dekkil nu loolu ku nekk ci ñun mu war ko gëm mu war a nekk pas pas ci moom ne dekki dafa am jullit bi gëm yàlla dafa bokk ci ponki ngëmam ginnaaw ba mu gëmee dee mu gëm ne dana dekki ci kanamu yàlla tabaraka wa taala ëllëg loolu ma ngay nekk ginnaaw faatu ginnaaw dee waaye lan mooy jubluwaayu dekk gi mooy atte ak fay lil xisaab wal jaza comme yàlla nu bind wàcce ñi ci àdduna togguñu jëf santuñu nañu liggéey ba pare wax ñu lan lañ koy liggéeyal mu dig ñi nekk ci loolu fay waaye tamit dig ay duma ñi bañ a taxaw ci santaane boobu kon ndeke lan mooy jubluwaayu dékki mooy fay yàlla dina fay ñi doon liggéey yàlla dina fay ñi bañu doon liggéey moo tax ngeen dégg yàlla mu ne man kaana yarju liqaa rabbihi fal ya'mal i'malu loolu ñaata aaya la liggéey leen waabudu rabbakum jaamu leen seen boroom kon ay santaane la yàlla li tax mu ñuy dekkil ëllëg mooy def nuy àtte xool ñan ñoo nekkoon ci santaaneem ñooñu mu fay leen ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci safaan it mu fay leen ndax loolu dafa bokk ci kenoy ngëm yàlla tabaraka wa taala ñaareel mooy al istidlal al istidlal bil xaadir ala al gaib wa huwa min al ulum an nafia dafa baax ci di daliloo di jàngale di tegtale ci rabtul maadi min al xaadir wal xaadir lil mustaqbal dafa baax bu ñuy wax ak nit ñi tey ñu won leen baaraam démb ne leen gis ngeen démb ña lànkaloon yàlla wala ña nanguloon yàlla gis ngeen gis ngeen démb gis ngeen démb lu tax ñuy wane démb mooy pour tey mën a baax waa tey mën a bàyyi xel démb jël ci ay dars moo tax alxuraan dafa bëri yàlla di ñu wax firawna qawmu aat qawmu tubba qawmu qawmu qawmu qawmu yooyu ngeen di dégg yonent yooyu ngeen di dégg ak nit ñooñu ngeen di dégg ay histoire yu bëri du hasard yàlla di ñu ko nettali dafa am jubluwaay lu tax mooy rabtul maadi min alxaadir dañuy jël démb yeew ko ci tey ñu jël tey préparé ko suba mana yan tegtal la ñuy jële ci démb pour sunu tey baax mooy jàng déglu histoire xeet yi fi jaaroon démb ba ñu lànkalee yàlla fan la yàlla mu jéeg ñoom alam tara kayfa faala rabbuk bi ashabil fiil alam tara kayfa faala rabbuka bi aad ñaata xariya la ñu yàlla di woon ñaata dëkk ñaata yonent ñaata nit ñaata buur yu lànkaloon yàlla fan la yàlla mujjee ak ñoom loolu ñu préparé ko suñu tey waaye suñu bëggee suba baax suba suñu bëggee mu baax kañ lañ koy préparé wolof yi dañuy wax ne dànk bi daan mbër mbër mi du bàyyi bay bëre ji di ko añee nangu ngeen loolu wa nangu leen dala déggu leen olof boobu dànk bi daan mbër kenn du ko añee jour combat bi mbër bi bëre ji est ce que añ bi mu añ jour bi muy bëre ji moo tax mu daaneel wala añ yi paase añ yi paase ñoo ko may doole parce que bi mu lekk tey reesagut ba mën ko may doole suñ bëggee suba suñu suba baax tey lañ koy préparé ku bëgg sa ëllëg baax tey ngay jaamu yàlla doo toog ba dee ne kër tim nga dugg bàmmeel naan xaar leen ma jaamu yàlla boobu jaamu yàlla pare pare na foofu kon dañuy tegtale bil xaadir alal ghaib ci li teew moom la ñuy tegtalee ci li fàddu dafa bokk ci xam-xam yi jëriñ doomu aadama yi nga mooy ñaar ñetteel mooy xusnu darbul amsal li taqribil maani ila al adhaani dafa baax léeg-léeg su boroom xam-xam yi di waxtaan ak doomu aadama yi ñu leen di indil ay misaal ndax liñ leen di wax jege leen ñu mun koo dégg dafa baax ci nit ñi bu ñuy wax ak ñoom ñu jox leen ay misaal yoo xam ne misaal yi daf leen a jege lool bu ñu làmbaay sax daj ko lu tax pour ñu mën a dégg li ñuy jàng loolu dafa baax pour maanaa yi mën a jege ci xel yi pour xel yi mën a ubbeeku nañ ñuy nañ ñuy won loo xam ne daf ñoo jege loo xam ne bu ñu gestoo gis ko loo xam ne bu ñu laalee daj ko loolu xam loo xam ne bu ñu génnee ci mbedd mi jàkkaarloog moom loolu dafa baax ñii waaraate ñii jàngale ñii yare ñu bëgg a teg nit ñi ci yoonu yàlla ñuy indi misaal yooyu pour li ñuy jàngale mën a jege nit ñi mbokki jullit yi ñeenteel ci li ñuy jëlee ci ñaari aaya yi mooy fadilatu shukr wa huwa sarfu niam fima min ajlihi wahabaha allahu ta wahabaha allahu taala lil abdi dafa baax ngëneel yi nekk ci sant sant yàlla ngëneel yi ci nekk te sant yàlla du lekk rek ba pare ne alhamdulillah donte ne ci xeet yi la bokk wala nelaw ba yeewu ne alhamdulillah donte ne ci xeet yi la bokk waaye mooy li la yàlla may ci xéewal nga def ko ci yàlla nga def ko ci yoonu yàlla nga jox ci jaami yàlla yi loolu mooy sant yàlla tabaraka wa taala nga joxe yàlla lim la dénk moom yàlla mi la ko dénk ndax almaal maalullah alal alalu yàlla li la yàlla dénk nga defal ko fi ko neex moom yàlla moo la ko dénk romb ñu bare bari jox la bañ a jox ñee xañ ñee jox la kon yow delloo ko yàlla tabaraka wa taala boo bëggee mu am barke mbokki jullit yi ñaari ay yi ci gàttal moom moo war a nekk tey sunu dars noo ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu dëgëral sunu làmmiñ ba duñu tarxiis ci ñaari aaya yooyu ma bàyyi cheikh bi mu jàngal ñu aaya yi wa huwa alladi yursilu riyaha
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون barakallahu fiik jazakallahu xayran al nan yàlla fay la yow sunu borom ne wa huwa moom yàlla alladi mooy ki nga xam ne yursilu moo yónni arriyaaha ngelaw yi ngelaw yi sunu borom subhanahu wa taala wax ne moom moo yónni ngelaw li wala ngelaw yi ñu bari li tax du ñu jëriñu ci seen diine wala dégguñu alquran dañuy jàpp ne ay ngelaw ak waaye ngelaw ngelaw ba njëriñ la am yàlla di wax ne maa yónni ngelaw yi ngelaw lan la lan la lan moo nekk ci ngelaw ñu bëri ci ñun xamuñu njëriñu ngelaw ñu bëri waaw ndeysaan fekk xamuñu ne dund gi àdduna bi mënta jag sans ngelaw àdduna bi mënta jag sans ngelaw li maanaam ñun mënuñu fi nekk àdduna bi li fi nekk mënu fi nekk foog ngelaw nekk fi ngelaw mooy genn wàllu dund te ngelaw yooyu wala ngelaw loolu dafa am importance trop te dafa am ay façon ngelaw du benn façon ngelaw ay façon la ni ngeen di gisee montagne yi nekk ay façon doomu aadama yi seeni xeet nekk façon seeni langue nekk façon noonu la ngelaw li nekkee ay façon ba pare am importance am njëriñ suñ doon tënk tuuti ci ngelaw lan mooy ngelaw mbokk yi lan mooy ngelaw kan moom mën a définir ak ngelaw hmm? da ngay dégg ñu ne la min anasir al munaax allati tuhaddidu al xayaa ala sathi al ard ñu ne ngelaw élément la boo xam ne mu ngi bàyyeekoo ci jaww ji ci climat bi moom mooy définir dund gi nuy dund ci kaw suuf ñu ne benn genn wàll la boo xam ne ngelaw genn wàll la goo xam ne daggit ci ngelaw loo xam ne dafa yëngatu jóge ci place dem ci place waaye lan moo koy déplacé lenn saa yi ay climat wala ay mbir ñoo koy tànc ñoo koy contre ba ngelaw li départ jóge place jëm place tey wala démb wala démb barki démb da ngeen jékki se- eh, ci biir Sénégal dëkk bi yëpp lan ngeen fi seetlu bu seet jamono yële passé lan lañ seetlu woon sedd jamono ñëw nga seetlu tàngaay jamono ñëw nga seetlu mbóoya lan moo koy def mooy loolu dafa am fu mu déparé jóge mais jékki-jékki rek jeqoo ko ci biir dëkk bi yenn contexte yi mooy tañ ci ngelaw li ba mu départ def loolu mën na nekk sedd mën na nekk tàngaay mën na nekk mën na nekk mën na nekk mën na nekk waaye ngelaw mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala daf ko xaaj ay xaaj am na ci yoo xam ne day wër àdduna du taxaw benn place am na ci yoo xam ne saison ba saison lay génn am na ci yoo xam ne at am ñoo too xam ne climat bi mooy tax mu génn tàngaay wala seddaay am na ci yoo xam ne nag contexte bi am na ci yoo xam ne ñoom naturellement comme ni doomu aadama yi dundee chaque jour ñoom dañuy dund ak moom kon ay façon yu bari la moo tax suñu borom subhanahu wa taala moom mi bind àdduna bi mu ñuy wax importance su ngelaw mu ne allahu alladi yursilu riyaha fa tuthiru sahaban fa yabsutuhu fi sama kayfa yasha wa yajcaluhu kisafan mu ne fa tara alwadqa yaxruju min xilaalih fa ida asaaba bihi man yasha min cibaadih ida hum yastabshirun wa in kaanuu min qabl an yunazzala alayhim min qablihi la mublisin fanzur ila athari rahmatillah kayfa yuhyi al arda ba'da mawtiha inna fi dhalika la muhyi al mawta wa huwa ala kulli shay'in qadir sunu borom rek mooy dëgg mbokk yi mu ne moom yàlla moo yónni ngelaw yi loolu dinañ ci ñëw ngelaw yi baatu ngelaw yi na ngeen ko bàyyi xel mu ne bu ko yónnee mu daal di déclencher ay niir mu tàllal ko ci kaw asamaan ni ñuy lale baas moom yàlla nu ko neexee nu ko neexee la koy tàllale nu ko neexee la koy yónnee ndeke ngelaw li sax ci soldaar yi yàlla lañ bokk subhanahu wa taala mu ne bu ñëwee ci njëriñu ngelaw mu ne bu doon ngelaw li kenn du mën a dëkk ci suuf si ndax ngelaw li mooy ñëw di wàññi tàngaay bi tàngaay jant bi moo tax gis nga moo tax doomu aadama allahu akbar li ko yàlla defal lu mu ci amul rek uti ko yenn saa yi nga gis ñu ne dëkk bi di amul ngelaw nit ñi génn borom alal yi ñuy def ah déedéet am dañuy wuti seen i climatiseur seen i ventilateur lu muy génne ngelaw climatiseur li ñuy génne ngelaw ñooñu foofu lañ toll ñenn ñi moom dañuy dem ba marché daal day jaay borom uppukaay bi jaay ma uppukaay bi cent franc waaye toog lu muy wut kooku lu muy wut kooku moom amul lenn moom day gàddu semisam ci mbaggam daal di sol kilot utali lu muy wuti ngelaw bu dee guddi nga gis gaay yi lal ci mbedd yi lu ñuy ut ngelaw bu yàlla defuloon ngelaw ci àddina bi kenn du fi dëkk loolu mooy premier élément bu ñu ñun war a sant yàlla subhanahu wa taala bu dëkk bi amul woon ngelaw nga xam ne dafay koj climat bi di ko wàññi di dagg jant bi ah kon kenn du dëkk ci kaw suuf ak lan ñaareel bi lan mooy nge- njëriñu ngelaw su ngelaw amul woon kenn du noyyi ah ñëwaguñ ci garab yi su ngelaw amul woon kan mooy nooyi ci ñun xam nga kon ku bëgg a nooyi lan mooy génn ci sa bakkan yi deret da ngay xoju deret génn après da ngay dee beneen bi mooy garab yi ngeen di gis ñuy ñor ndeke garab yi dañoo am ay góor am ay jigéen ah garab gee ñu ngi ko samp fële garab gee ñu ngi ko samp fële bii nekk góor bii wa nekk jigéen ñoom ñaar ñu war a sëy kan moo leen di sëyloo ñoom ñaar ngelaw li mooy jël góor gi yóbbu ko ci jigéen gi jaxase ko bu jigéen bi am doom nit ñi lekk comme nit ñi ni ñuy dencantee ci ay sëy di di di am ay doom ndeke noonu la garab bi di sëyee waaye lan moo koy def mooy ngelaw li beneen njëriñ mooy su ngelaw li amoon amul woon kon dara du wow wala dara du wow léppay tooy wala seen yére yi ngeen di sol nii buñ fan lañ koy weer ah ci ligne bi ligne bi lan moo ko fay fekk ngelaw leeg naaj bi mu daal di wow kong daal di fendi su fekkoon ne loolu amul kon fuñ jëm beneen bi mooy li gën a rëy ci li ñu ngelaw di jëriñ mooy lan taw yàlla mooy jël ngelaw li yóbbu ko ba ci asamaan su laalee asamaan côté yu sedd yi rek taw jëw lu scientifique yi wane la lu yomb ni taw di ñëwee mooy da ngay jël cin nga taal gaz teg ko ci nga jël cin teg ko ci ko gaz bi wala këriñ nga jël kubéer gi ub ko ci cin bi nga bàyyi ko foofu defoo ci dara est-ce que biir cin bi am na ndox ah amul ndox lépp ci biir cin bi kubéer gi ba ci suuf nu mu mel lépp daa wow waaye boo ubbee kubéer gi ne nii rek lan mooy wàcc day gis ndox tuuru xam ngeen lan mooy indi ndox mi mooy ngelaw li moo laal kubéer bi sedd ak tàngaay bu ñu laalantee rek ndox day ñëw moo tax gis nga bu tàngee jër jër da ngay jékki-jékki rek taw bi ñëw tàngaay boobu la yàlla di jël ngelaw li yóbbu ko kaw asamaan fekk defar na ay niir niir yi tiim foofu sedd guy su ngelaw li ne saraax ci biir niir yi rek ndox wàcc kon yàlla du suñ morom jallat qudratullah soo ko demee ca climatiseur noonu la wala frigo frigo boo ko ubbee lépp glacé ah ci biir benn climat moo fa nekk soo ubbee kubéer gi rek nga gis ndox commencé wàcc ci glace bi xam nga lu tax ndox moom wàcc mooy ngelaw li moo ko wàcce moo ko génne seddaay ak tàngaay saa yu ñu laalante rek ndox ñëw ndeysaan benn boroom xam-xam mu ne léeg-léeg nga gis jigéen joo xam ne dafa sol mini jupe ween yeeg yaram yëpp yëpp mu ngi ci biti mu ngi upp nga gis koo xam ne dafa muuru lépp mu ngi toog uppuwul lu am noo ko waral mooy kee muuru yaramam yëpp benn benn climat la du yëg tàngaay ñu bëri bëri dañu yaakaar ne boo muuroo da ngay yëg tàngaay yow xanaa tàngaay bi reyu la yow xanaa yëgoo lakk gi du ko yëg parce que yaramam bi benn nature la benn tàngaay kese moo fa nekk yow mi nga xam ne muuru woo yow yaa yëg loolu yow yaa yëg tàngaay wuu tëdd parce que tàngaay ak seddaay ñoo nekk sa yaram loolu lu simple la bu ñëwee ci lafz baat yi yàlla wax ngelaw yàlla moo ne moo yónni ngelaw li lafzu riyaax fil quraan ngelaw yi yàlla wax na ko fukki yoon ci fukki barab ngelaw yi ar riyaax jam'u la yàlla wax na ko fukki yoon ci alquran waaye ci fukki barab mu ne bu fekkee nag baatu ngelaw li yàlla wax na ko fukk ak juróom ñetti yoon ci alquran ci juróom ñaari ci fukk ak juróom ñaari place am na ci saar boo xam ne yàlla baamtu na ko fa ñaari yoon muy suuratu yunus mu ne bu ñëwee ba tey ci alquran danañ fekk baat yii yàlla fépp fu mu wax riyaax jàmm moo fa nekk fépp fu mu wax riix mbugal moo fa nekk moo tax yonent alayhi salaatu wasalaam ndeysaan bu asamaan xiinoon ñuul kukk yonent bi day mel ni jigéen juy matu xam ngeen jigéen juy matu kan moo fi mos a gis jigéen juy matu da ngeen ma wuyu ku mos a gis jigéen juy matu mooy jigéen ju am doom jigéen ju waaj a am doom mës nga ko gis ndax ndax day tëdd benn place day jaabante yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu asamaan xiinoon day jaabante day jaabante du toog Aysa ne ko yonent lan la doo toog mu ne mënumaa toog ndax xaw mu aad nii la woon asamaan xiin ñu yaakaar ne dañuy noos nitu nuux yi nii la woon asamaan ñu dafa ne mu ndeysaan mu mu koy wax yaay Aysa nitu sàngam yi nii la woon asamaan xiin ñuy zibilé yor seeni sabar di tëgg maam yàlla may ñuy ndox bu ñu dundee fay la ndox fekk xamuñu ne mbugal mooy ñëw ndeysaan yonent bi du toog du toog du toog du toog du toog nii lay def va et vient va et vient ba asamaan bi commencé taw mu ne allah allahumma ij'alha riyahan wala taj'alha rihan yàlla def ko ay ngelaw bul ko def benn ngelaw ndax benn ngelaw baaxul fu mu dugg dëkk bi da leen di alag benn ngelaw moo tax yàlla def ko ngelaw yu bari bul ko def benn ngelaw su asamaan si commencé dal nag ndox tub tub tub mu ne allahumma sayyiban nafian yàlla taw bu barkeel taw bu barkeel ndax yenn saa yi day taw ba pare yenn saa yi day taw ba pare nga dégg gars yi ana autorité yi ana ministre ñu daal ne lan orsec plan orsec lu ñu def limmanko plan orsec nangam nangam commencé ana sapeur yi ana ana ana ana ana ana ana école yi nit ñi commencé toxu ko doo bu amatul njëriñ moo tax gis nga ñun suñu diine lim ñu jàngal ndeysaan dañ ci dul jëriñu lu bëree bari gis ngeen tey ngelaw nga xam ne suñu dars tey bi yëpp moom nañ ko concentré tey ci ngelaw li moom kese tout court li yàlla ne man yàlla subhanahu wa taala maa leen yónnee wa huwa alladi yursilu riyaaxa man yàlla maa leen di yónnee ngelaw li jam'u riix wa huwa alhawa almutaharrik mooy ngelaw li buuse di yëngatu nga xam ne tey ñun ñii ñëpp la amal njëriñ ku mere yàlla wax ko ne téyel sa ngelaw est ce que xam ngeen ne secret bi gën a rëy ci ngelaw xam ngeen ko ku ko xam yëkkati sa loxo secret bi gën a rëy bi yàlla def ci ngelaw kan ma ko xam fii mooy yàlla joxu ko kenn ci loxoom la ko teg joxu ko nit tey ji bu yàlla dénkoon kenn ngelaw li eh yow yaa yor ngelaw li waa ji bu la meree rek lu muy def yow mën ngay fontoo si yàlla dénkoon kenn ngelaw li mu mere la lu muy def li muy njëkk a def day dem ci sa tiwo comme ni gars yi defoon sa maam ndeysaan day dem ci sa tiwa rek jël paaka bi dafa am benn cheikh bu tudd oustaz Ali Guèye rahimahullah génn àdduna dëkk bi mu nekkoon muy Canaba bañ ko meree ñu wax wax wax wax ñu mere ko dem ak moom fu nekk yóbbu ko police lu ne ñu dugal ko mëna luñ ko dërëm ñu joxe ndigal nañu dagg tiwa ndox bi jëm këram forage bi ñu wax benn waay paaka ak peel waa ji gas gas gas gas gas ba gis tiwa bi jël paaka di ko dagg mu génn na ko diw paa bi gestu mu ne ko ragalal yàlla ci man waa ji na ko ma koy dagg nga naan rek daal di dagg téw bi xam ngeen waa jooju lu ko dal bi mu daggee téw bi basin sexam bi indi sow la yàlla dagg mënatul téye saw fu mu toog di saw ba waa ji noonu la dee yëgoon nga loolu waa ji noonu la dee bi waa ji daggee téw bi jëm ci këram yàlla arrêté forage bi forage bi paan dëkk bi yëpp ñàkk ndox te këram dong moo am teen mu ne leen sama kër balaa nit dugg fi root da ngay muuru jigéen ju muuruwul doo fi dugg moo tax wa man yatawakkal ala allah ku jàpp ci yàlla yàlla doy la léegi yii ñuy def nii di ay xuuxalaate rek kese la du tus olof yi xale yi dañuy wax ne lu dul yàlla pintoo la da ngay diw xam dul yàlla pintoo la da ngay diw xam du la lor dara dañoo mën dara tukulóor yi nee nañ dudd korso dudd korkor si na loron no tuutay réedu hóore joomum amul njëriñ wa huwa moom yàlla allazi mooy ki nga xam ne yursilu riyaaha moo yónni ngelaw yi gis nga ngelaw yi su ñëwee rek lu muy nekk busram bayna yadayi rahmati day nekk kontante day nekk mbégte ndax taw bi day taw indaale ngelaw lu sedd indaale ndox mu neex indaale quantité bu mat boo xam ne suuf si day tooy baykat yëpp daal di génn dem bay ji yëf yi sax affaire yi daal di màgg daal di naat ñu récolter loolu mooy bushra dex yi feesaat xar yi jur yi lekk naan ah dëkk bi yëpp nëtëx foo romb gis mu vert moo tax yàlla mu ne mbégte lay doon bushra mbégte mbégte goo xam ne ci la ndox mi di wàcc taw bi daal di taw lépp daal di dund est-ce que xam ngeen ne ci taw ci la yàlla di dundale lépp même doomu aadama ci ndox la dundee wa ja'alna min al ma kulli shay'in hayy yàlla nee na lépp lu ngeen gis ci àdduna muy dund ndox moo koy dundal oto sax pour mu daw oto nit la wala du nit ah du nit waaye day am ndox wala bu amul ndox est-ce que oto kese la ci machine yi xoolal dooma xoolal rab yi léppay naan lépp tout xoolal suuf si sax day naan suuf si sax day naan su naanul day wala yàlla mu ne wa jaal naa déggu leen baat bi de man yàlla maa def minal maa i ci ndox kullu shay lépp xay lépp lu dund ndox mu ngi ci su amul ndox bal sax mbindee fi moom mbindee fi ndundatee fi moom sax yàlla nga ko tàggat ci yàlla nga ko bindee ci ndox même doomu aadama yàlla nga ko bindee ci ndox cosaanam mooy suuf waaye après lépp ndox la da ngay dégg min maa in mahin mu ngoog sunu borom ne mu nekk xéewal goo xam ne man yàlla maa leen ko yónnee mu jóge ci man nekk yërmande rahmatan rahmatullahi taala wa hiya al matar ndeysaan benn buur dafa nekk ci àll bi ànd ak ay dagam asamaan si xiin lëndam lool bi déew yi suux weer wi jant bi lépp kenn gisul yëf yëpp lëndëm dënu yu commencé melax yi commencé kar dëw di dóor buur bi daan ne ñi mu àndaloon lii day ngeen di gis ñu ne waaw mu ne yërmande yàlla la kon su meree nu muy mel lii de ngeen di gis nii xam ngeen dënu ah ak melax ak ni muy mel yërmande yàlla la kon yàlla bu meree nu muy mel fekkee ne bu kontaanee noonu lay mel kon su meree mbokk yi nan la war a mel allahu akbar mu ne loolu noonu ñuy gis te muy yërmande yàlla mu nekk mbirum mu nekk taw bi mu ne hatta ida aqallat sunu borom subhanahu wa taala ba mu yëkkatee taw bi yen ko aqallat hatta ida aqallat sahaban hamalat sahaban thiqalan musbi'an yàlla yëkkati ngelaw loolu wala taw boobu daal di koy yóbbu ci niir yi loolu lépp lan la ko defee yërmande moom yàlla ngelaw li day jóg ci kaw suuf yéeg kaw asamaan daal di dugg ci biir niir yi daal di yenu niir niir yu diis yu fees del del del ak ndox hatta ida aqallat saxaaban siqaalan mu yenu ay niir yoo xam ne dañoo diis fees del lan la ko yàlla di doyee mu ne suqnaahu li baladin mayit ma dem roose ko suuf soo xam ne dafa deewoon suuf su wow koŋ ñuy romb àll bi da ngay jekki-jekki temps yi boo rombee ci àll bi gis lépp wow doo gis benn garab bu verte bu taxaw lépp a wow waaye bu ci yàlla commencé sotti ndox mi ay fan rek nga gis lépp verte tout soo rombee da nga naan waaw waaw kan moo fi daan def ay gazon soo rombee àll bi lépp ay verte yàlla nee na xoolal suuf soosu suuf si dafa dee woon man yàlla suqnaahu maa ko roose maa ko nandal li baladin mayit ci suuf su faatu soosu ba loolu amee fa anzalna bihi lma ma wàcce ci ndox mi ba ndox mi wàcce ci ba suuf si naan ba mandi lan moo xew fa axrajna bihi min kulli thamarat ma génne ci bépp fruit min kulli thamarat léeg-léeg ma laaj waa Casamance suñ fa demee réex la xuruj ma laaj leen ne waaw yéen gars yi la ngeen def ñu ne ñu ngi fi ma ne waaw yéen garab yi koo fi doon jëmbat ñu ne oustaz tey indi nga dar su rëy voilà àll yi ngeen di romb garab yi kan moo ko fa jëmbat dafa am ay nit yu ne la ñun ñoo ko fi ñëwoon di di ko jëmbat nii di ko roose ñan la àllu Casamance bi ñen ñoo ko doon jëmbat beneen bi mooy àll bi ban fruit yu moo fa manqué wax leen ma ko ban fruit yu moo fa amul te àll bi ci àll yi gën a tuuti ci àddina bi la bokk am na àll yoo xam ne boo ci duggee doo gis jant soo fa réeree pare nga am na ci àll yoo xam ne kenn ñëwu faa dem sax bu fay dugg nag ah kan moo jëmbat garab yooyu sunu borom nee na man yàlla ba ma roosee suuf si ba suuf si dund fa axraj naa bihi génne naa min kulli samaraat mboolem firwi mboolem meññeef génne naa ko fa nga lekk ci wala lekkoo ci ba pare xool leen firwi yi da ngay togg ceeb ceebu jën nga koy togg ci benn cin boo ci defee xorom lan lay saf xorom ngay togg ataaya nga def ci suukar lan lay saf suukar continuer leen ko noonu continuer leen togg yëpp ba togg yi jeex booy togg ceeb nga def ci kaani après boo yekkee boo defee ci bee poobar boo defee ci bële bu nekk boo ci def lool la xoola sunu borom nag benn tool day nekk ni tool bi pomme mu ngi fa orange mi ngi fa jaxatu mu ngi fa kaani mi ngi fa lingom mi ngi fa banaana mu ngi fa mango mu ngi fa benn ndox lañ koy roosee waaye bu tool bi ñoree loo ci lekk changé wut te benn ndox la kaani luñ koy roosee ndox mi boo ko cappee déedéet du weex de day saf jaxatu day wex nawe dafa lewet banaana dafa saf suukar dafa neex yépp tusqa bi ma in wahid benn ndox lañ ko roosee benn ndox lañ ko roosee waaye xoolal bañ koy lekk te lépp benn tool la nekk ci benn suuf ci benn kër ñu roose ko benn ndox ndox maa ngi ni ci gën roose ko dañ ko joxee nga lekk du benn te cin bi moom ba nga defee xorom jën bi jën bi ñaambi bi nawe ba batañ saba lépp xorom buñ ci defoon suukar buñ ko yekkee ba pare ñaambi bi jën bi ah lu tax du benn pourtant benn ndox la waaye xoolal fee ndeysaan sunu borom waaye yooyu yëpp ñun duñ ci jàngat daf ñuy romb nii te loolu moo tax duñu jëriñoo alquran yëpp tusqa bi ma in wahid beneen bi mooy mbokk yi maa ngi leen di laaj ñaata façon fruit yi moo am ci àdduna bi ah bëri na mën nañ koo lim ba mu jeex ba pare xoolal fruit yooyu yàlla mu ne mataan lakum wali anamikum yéen da ngeen ciy lekk seen jur yi lekk ci da ngay dem jënd banaana nga lekk affaire yi ba pare xaar bi ne la waaw jox ma xolli di nag bon nga torop nga ne ko am ah nga dem marché jënd ñaam bi xolli ba pare lekk xaar bi ne la waaw jox ma xolli di boog mataan lakum yéen ñi da ngeen ciy lekk wali anamikum am na ci dëkk yooyu dem sax lu mel ne Casamance ñoom nag yi dañuy tëdd di lekk ma nag yi duñu lekk mango bu wadd ah am na ci dëkk yooyu dem Casamance nag yi duñu lekk mango bu wadd ñoom dañuy taxaw di lekk mango yi ne ci garu gi bàyyi bu wadd duñ la laal maanaam di bii baaxul bii baaxul nag yi dañ naan mango bu wadd baaxul bii baaxul la ñuy wax mango yi nekk ci kaw ndeysaan la ñuy jël di lekk ni nii di lekk ndeysaan allahu akbar nga gis picc yi gis buubu golo yi di salsalaatoo màdd fër fër nga taxaw di seetaan allahu akbar yëpp tusqa bi ma in wahid kan moo ko defar yàlla jalla jalaaluhu ñan ñoo ko doon roose ñi koy lekk la lañ fay yàlla xoolal ñun fii lañ nekk Dakar lu bari du fi ñor waaye fii lañ koy indi nga dem jëndi lekk sun borom moo wax dëgg fa axraj naa bii ma génne ci min kulli samaraat mu ne yàlla nee na nii ngeen gisee lii suuf si dee ma indi ndox roose ko mu sax àll bi dund verte meññeef yu nekk génn ci façon meññeef bu ngeen gis mu génn ci kadalika nii nuxrijul mawta noonu laay génnee ñu dee ñi ëllëg yowmal qiyaam ci biir suuf si ñëpp dekki kenn du tardé allahu akbar waaw instant bii ñu toll ngay romb àll bi gisoo benn xeetu garab gisoo benn xeetu ñax gisoo benn xeetu fruit mu taw yàlla dekkil suuf si nga romb fi nga romboon ñemeetoo fa jaar yii fii de ñemewu fa jaar foog ñu gunge ma pourtant fii nga jaaroon démb la moo tax tey ñeroo fi jaar nga ni fii di fa lëndëm fii ñemewu fi jaar te pourtant fii nga jaaroon démb yàlla nee na nii ngeen gisee tey ma dekkil suuf si ba fii ngeen jaaroon ñemetu leen fa jaar ëllëg su ngeen dee yéen ñëpp ba nu dugal leen ci bàmmeel noo laa leen di dekkale kenn du tardé kon borom mooy borom kàttan mu ne kazalika nii nuxrijul mawta nii lay dekkilee ñu dee ñi kenn du tardé benn malaaka mooy taxaw rek daan ne yéen yax yu fënax yi kawar yi tasaaroo yi ñàpp yi ñoppatiku yi jóg leen ku nekk fi nga tëddoon sa biir bàmmeel rek nga ni bëreet jóg naan man ba asana min man qasina haza waay waay kan moonu dekkil ci sunu bàmmeel yi ñu yàlla yónni woon ne hada ma waada arrahman wa sadaqa almursalun lii la la yàlla digge woon waxoon na ku dee di nga dekki tey dekki nañ kon ñi yàlla yónni woon wax nañ dëgg waaw mbokk yi aaya bii di jeex nii yàlla ne man maa yónni ngelaw li ngelaw yi mu nekk mbégte mu yenu niir yi dem wàcce ci taw ma roose si suuf su faatu si suuf su wow si suuf su dee si ma génn ma roose ko ba mu tooy xepp ma génn ci fir wi yépp noonu laay dekkile ñu dee ñi ëllëg yowmal qiyaam xool leen aaya bi mu ne laallakum tazakkaroon na lii ngi war ngeen cee waaru war ngeen cee fàttaliku balaa ngeen dee dajeeg man lii rek lii rek aaya bi dong lan lay jàngale bu fekkoon ne yéen da ngeen di jàng ca université yi lu ngeen lan la leen aaya bi di jàngal science la leen di jàngal ah kan moo def lii tey bu ñu newoon benn tubaab benn scientifique moo ko def nga dégg naa non waa ji dafa garaaw non il est fort waa ji xoolal ni mu créé temps niir yi xoolal ni mu créé ngelaw li xoolal xoolal xoolal garab yi xoolal fruit yi nga gis gars yi commencé di ko takkal ay gaaraat daf daal di koy defal lan xaw ma lion lan la ñuy wax ordre national xaw ma seen ordre yooyu ñuy takkalaate ay prix Nobel ak ay ordre national de lion xaw ma di mérite seen gratu franc-maçon yu bon yooyu ñu lay nax rek ndeysaan waaw yàlla mi def lii nag ndeysaan xoolal li mu def lépp bi mu paree mu ne man yàlla lii def naa ko laallakum ndax yéen ñii tazakkaruun ngeen xalaat ci ngeen xalaat ci bu baax xóotal ci seen xel xool ngelaw lan moo ko composé yéen ñi nekk université ngelaw lu ko composé ngeen xool ndox lu ko composé ngeen xool niir yi lu ko composé ngeen xool taw lan mooy tax mu taw ak kan moo koy def kan moo déclenché ngelaw li ci suuf kan moo ko yóbba kaw asamaan kan moo ko couvrir ak niir yi kan la tey moo ko def boppam quoi non moo ko moo ko def boppam nga dugg ci biir néeg bi fekk ceeb bu jën bu ñor xomm ñu teg ko ub ko teg kuddu lépp nekk ci dara manqué wul ñu tegal la serviette tegal la ndox nga ni ku fi indi li ñu ne moo fi indi boppam doo ko lekk billahi doo ko lekk même bu doon ginaar la nga ne eh ku ma indi reer ñu ne reer rek gu ñu reer de nga ni non moo ngi ni ginaar ak ay pombiteer rek lépp moo ngi nii ñu ne ah ñun de indi wuñ ko fi da nga naan ii yóbbu leen mbalit wala kan ci yéen fi moo koy lekk kan du ko lekk da warul waaw léegi nag nga gis asamaan nga ni moo fi indi boppam nga gis suuf nga ni moo fi indi boppam nga gis jant nga ni moo indi boppam nga gis weer nga ni moo gi- gis boppam nga gis géej nga ni nga moo gis moo fi indi boppam nga gis sa bopp yow mii wa fi anfusikum afala tubsirun nga gis sa bopp ñu ne la yow nag ñun ñëpp dañ fay ñëw rek accidentalement quoi c'est benn big bang ah ñoo xam ne benn big bang rek ñu ne bam ñëw big bang bi bim ñëw loolu yomb na de sa waay olof yi nee nañ lu yëngu la ko yëngal la ko ëpp doole allahu akbar alxuraan wax na ko xanaa gisu leen asamaan ak suuf ñoo nekkoon ah kaj yàlla mu ne fa fatahnahuma man yàlla maa ko ubbi kon leex na jeex na takk suñu borom moo ko def borom bi mu ne wal baladu tayyib suuf su baax gis nga fii aaya bi day jàngale tey loolu ngeen naan mantiq ak bayaan suuf su baax wal baladu tayyib jigéen ju baax góor gu baax yuxriju nabatahu bi izni rabbi day génne doom yi muy jur ci kattanu boroomam waaye yu baax la ñuy nekk ndax dafa baax tool bu baax wal baladu tayyib suuf su nangu suuf soo xam ne buñ ci jiyee rek mu sax lool lool loolu la doomu aadama war a wut soo amee suuf su baax lan lay génn lan la lay génneel mu ne yuxrij nabatahu bi izni rabbi day génne gàncax si yu baax yu rafet waaye ci kàttanu borom bi waaye walladi xabusa nga fekk tool boo xam ne ay garga mboose moo fa nekk ak ay dëkk ay xaaxaam nga dem bay fa borom bi nee na laa yaxruj illa nakida du génne lu dul musiba naaru laay lu bon dara la dul génne lu baax léegi nag nga toog di wax di ñaxtu fekk kan moo ko def yow yaa ko def illa nakida du génne lu dul lu boñ du génne lu dul loolu ngeen di wax ko jaasi daltintaa sama naa ko jaasi loo xam ne amul la benn njëriñ loolu lay génnee parce que suuf sa baaxul illa usran du génne lu dul jafe lu lu luy lu lay indil jafe-jafe naka noonu soo fekkee jigéen ju baax nga takk ko doom ju baax dong nga ci am waaye boo fekkee jigéen joo xam ne saay-saay la bandi la nga dem takk ko loo ciy jëlee wala di xabusa jigéen joo xam ne dafa bon wala góor goo xam ne dafa bon dem takk la loo ciy jëlee laa yaxruj illa nakida ndax yonent bi nee na al iraqu dasa siddit day roogalaat siddit papa di fecc papa di tëgg yaay di fecc doom bi nu muy def loolu ngay dégg da ngay dégg fii sax ci ci suñu man xaalisu mbër lañ ma ngéntee kon bi nga juddoo moo tax nga nekk man sama papa grand artiste la grand ndaanaan moo tax ah foofu nga mën a nekk parce que loolu nga wax loolu la olof yi neen lu juddoo ci tàgg naaw jaaxalu ma ko suñ la suñ la ngéntee xaalisu mbër kay boo ngembul te jaaxal nit ñi bu sa papa di woy sa papa di sa yaay di aw kon yow boo woyul boo woyul tooñ moo tax gis nga fii ñu bëri ci woykat yi ndaw ndawaan yi seen papa ak seen yaay dañ doon woy da nga gis koo xam ne papaam ak yaayam yëpp dañ doon woy nga gis ñii seen papa rek ñooy woy ba ñu juddoo ñu woy voilà léegi nag yow boo buggee nga am doom bu baax da ngay dem ca ñu baax ña nga wut fa soxna boo buggee am doomu fecckat da ngay dem nga takk yaay ju mën a fecc boo buggee am doomu footballeur da ngay dem nga wut jëkkëru footballeur même joueur yi sax joueur yi ngeen di gis nii fan yi rek maa ngi dégg benn waaye mu naan non joueur bi nu mu mënee football mais li ma métti rek mooy dafa dem nationalité xam kii moo ko jur diw moo ci mooy papam te diw sol na équipe nas mayoon na équipe nationale fan yi dégg naa benn waaye di kaas loolu boo nekkee footballeur doomu footballeur ngay am boo nekkee mbër doomu mbër ngay am boo nekkee càkkaaba doomu càkkaaba ngay am boo nekkee doomu woykat boo nekkee woykat doomu woykat ngay am yàlla li mu wax mooy dëgg walladi xabusa laa yaxruju illa nakida yàlla mu ne kazalika nii encore gis ngeen sànq waxoon na fee laallakum mu ne kadalika nii nusriful ayat nii laay faram-fàcce aaya yi di ko leeral li qawmin ñeel ay nit yoo xam ne yashkuruna danan sant yàlla allahu akbar kon ndeke bu ñu xalaatee ci aaya bu njëkk bi ñu xool suuf si yàlla wax ñu xool jigéen ji yàlla wax ñu xool góor gi yàlla wax yàlla orientation yum ñu bëgg a defal fii rëy na rek ñu naan wal baladu tayyib suuf su baax yaxruju nabaatahu day génne ay gàncaxam bi izni rabbihi ci ndigalu boroom wallazi suuf soo xam ne xabusa dafa bon laa yaxruju du génn illaa nakida lu dul lu bon lu jafe déedéet yàlla daf laa bëgg nga dem uti lu baax comme nee na la wal baladu tayyib ah demal nga uti lu baax ci lu mu mën a doon util lu baax bu dee alal la utal lu baax bu dee ay àndandoo la utal lu baax bu dee utal lu baax bu dee soxna la utal ku baax bu dee borom kër la utal ku baax bu dee lu nekk utal lu baax ndax loolu kat moo ànd ak ngërëmal yàlla ndax ndax yaxruju nabaatahu bi izni rabbi waaye walladi xabusa la nga xam ne moom dafa bon yées dégg nga lut sa borom bi wax laa yaxruju illa mu ne kadalika nusrifu l ayat li qawmin yashkurun nii lay faram-fàccee aaya yi nii laa koy leerale tasriful ayat tanawwuha wata wa nuxaalifu bayna asalibiha yàlla nii la koy wuutalee di ko faram-fàccee yii mel ni te yii mel na le yàlla leeral la njëriñ yi yàlla wax la la nga ciy jëlee yàlla wax la la ciy nekk yàlla wax la njub ba ci nekk ak yan jàngat nga ci war a def kon lii moo doon darsi tey noo ngi jéggale sunu borom njuumte njuumte yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bu fekkee ne am na ay laaj yu ci